présentez-vous à la veille du procès moom ak agisa greffier peut être cas de foule prise d'accord nous mën faire exactement alors le numéro aussi est ce que nous koy confirmer ou pas que ni si veille le 15 wala na présenter devant le greffier que nous suba dinaa ñëw si procès bi. dama ne Ousmane Sonko procès bi. Hmm. xuma kenen de mais xamna hmm. naa ne man. Hmm. sama gis ak sama xalat Ousmane Sonko day dem wuyu. dina dem wuyu parce que faut mu dem du mom si bopom à sa propre personne. li nek ginam, ginnawam ak li war leer ak li wara xam nga lu ñu mëna tek sur la table mo bëri mm. tellement ko mom fokk mu dem. Mm. té demam bi ni demul pour mom kessé Ousmane Sonko demul pour mom kessé mais Ousmane Sonko mu soobu ci campagne pour désobéir yoon ak walu yoonal exactement.

Euh, jamono ji euh, fu ma justice woon ma fa wuyu ji parce que lan euh, tëddoo ñu li nga xam ne que moo di ñaaxaandaay donc est ce que jàpp na ni instant yi Sonko wax ko indirectement man du ñu dana boroom xel ka du dem wuyu ji ki nga xam ne que moo di Adji Sarr état dana ko plus que si mën a jotul convocation am. demal ne dafa mel ni yow ba léegi yow fu may waxee sax mënoo si bàyyi xel. allez-y hmm. ne Ousmane songo dafa war a dem wuyu. waaye lii lu mu wax mu ne dafay désobéir. mënul désobéir du am benn incohérence bu désobéir. loolu moom bu ko man de dégguma ko mais bu ko defee bu ko waxee tam ma ah. dégg ko. Ah. dina xam ne moom tas na ay yaakaaru sénégalais. ndax bu ñu fàtte problème bii nii moo jur ay problème de mort yi nga xamante ne. Hmm. Sénégal ba tey ñu ngi jooy loolu jeexagul. Hmm. am na ñoo xamante ñu ngi si ñàkk seen i alal ba tey kenn mënu leen fay ngir procès bi donc procès bi yow gisoo dafa war a leer. alors ñu bëri suñu euh, jàpp ne ne su su wuy juwee mooy. jël pistolet daal koy teg si boppam exactement que ni dinañ ko fa daal di yuuxoo saboté ko entre autres entre autres noonu la gis suñu sénégalais daal gisee par rapport ak wàllu wu nu mel. dama ne bu demule. Hmm. Sonko bu demule moom si boppam mooy andil boppam encore problème sama gis-gis laa lay wax. donc bu ay gis na mu dem mais bu mu amee ñaar gisoo mu parce que ñu bëri ñu bëri fu ñu focaliser mooy bu bu demee gaa lañ koy jàpp tëj ko dama ne juge. Hmm. buñ la woowee. Hmm. ab képp ku munti doon na nga war a dem wuyu Mom, amna ay preuve amna ay nit yo ils sont prêts pour mm. témoigner que Sonko deful li amna ay nit parce que dossier bi bien, dafa am fu jaar fu beuri dossier bi ni dafa am fu mu jaar fu mm. Exactement. ba si bu meuna yex fi parce que té bu ñu xam le commencement bi fal la ana femme bobu momo li nga xamantene salon bi mom mm. amna de responsabilité Ne waaw dafa war a hmm. wax. jot na convocation ki nga xamante moo di capitaine Touré dafa war a wax. sëñ Bassirou gay sëñ Bassirou gay si moom tamit même chose donc tey Sonko am na position bi nga xamante ne tey. Hmm. moom am na li nga xamante ne moo di ay levier yi koy jaral mu hmm. dem wuyu pour seetal une fois pour tous li nga xamante ne moo deram waaye tamit dimbaluñu. andiwaat li nga xamante ne moo di jàmm bu ñu soxla ñun si kaw dëkk bi wala si biir dëkk bi jàmm jooju la ñu soxla. alors euh, Ablaye dañuy daal dem directement si li xam ne que moo di euh, lundi lundi nag Sénégal ñu si ëpp na daal na jàpp ni le Sénégal retient son souffle par a bien sûr à ce dell ay policiers ak ñu mel daal di koy li nga xam ne que moo di peut être toog si buntu këram baare euh, cité kër góor gi yëpp comme ni ko doon defee d' habitude. loolu gëm naa lay am loolu. day am. ndax dafa def sortie bu ndaw. loolu mu ngi am fépp Macky Sall doon Macky loolu fépp la am. damal ne le fait que ñuy barricade. moom si boobu moo ko waxoon dama ko seetaan nee na dafa demoon def benn tournée. Hmm. gars yi jàpp ko pompe ko ay lacrymogène sànni ay bagage am. am hmm. ruube ko jaay ko doole ba tas li nga xamante ne moo di mitinam bu ndaw bu mu doon def nemmeeku hmm. tuuram boobu noonu. chaque procès boo xamante ne Sonko dafa war a dem wuyu xamal ni gars yi ñu ngi koy surveiller ba biir buntu këram parce que man la ñuy bañ. Full bu top. topp te moom nee la néx nako ko gaay bëgg nañ ko ba pare dañ ko bëgg mom lañuy gis ñi di génn ni di top Ousmane Sonko Ousmane Sonko yokku leen dara dañ ko bëgg parce que gis nañ ni ki ni moy ki jara top ngir lu mu wax gaay dégg lu mu révélé gaay gis ak fuñu jëm.

Euh, fi ko euh, préfet bi daal di jàll ne ko fi ngay aw mu daal di fi aw wala kon euh, day waxati que ni fii duma fi aw parce que fii wooluma ko jàpp nga ni mu daal di war a mën a obéir li nga xam ne que moo di la décision préfectorale wala kon mun daal demal li nga xam ne que moo di boppam. xam nga projet bi commencé wul tey. Hmm. te si biir itinéraire boobu ngay wax noonu. Hmm. amoon na lu mu fi demee. Hmm. gars yi jëlal nañ ko en convoi def ko naka sudul noonu donc moom tey est-ce que dina jëlaat responsabilité bàyyi boppam ñi nga xamante ne bëggoon nañ ko. faaxaagal mu nekk waat seen ginnaaw defe naa ne Sonko du bàyyi loolu waat de sama gis-gis defe naa ne yoonu boppam lay jël de yoonu boppam. mais est-ce yoonu boppam takk der yi ne ko yoon bii ngay aw est-ce que fii du daal di juraat ay euh, instabilité ay euh, émeutes. dama ne euh, Sonko manifestation entre face de l'autre ak li nga xam ne que moo di militant. damal ne manifestation mënul ñàkk. parce que dafa doon nit koo xamante ne saa bu génnee nit na koy topp mais sécurité bi luy seen war. mooy fi mu génn war a jaar. Mm. ñoom nañ sécurité foofu. Mm. bu ñu bañee coow am bu ñu bañee problème am. Mm. Sonko bu nee nii laay jaar nañ ko ne waaw comme nii ngay jaar waaw nangu nag nii ngay jaar waaye dinañ la accompagner dinañ la topp mën la cadrer ba tax na fi ngay jaar mu bañ am li nga xamante ne moo di problème agression wala yenn problème yi ngay gis nii si askan bi. donc jàppoon ni da ko war a euh, li nga xam ne euh, waruñu ko conditionné mais da nga ko war a euh, encadrer. waruñu ko conditionné dañ ko war a encadrer plutôt pour ñu mën a jël. l'itinéraire bu nga xamantene mom bobu la choisir ba palais de la justice mu dem wuyu ci si jàmm ñibbi ci jàmm comme tous les sénégalais alors euh loolu exactement ñu gis ni boobu ba tey mi ngi song ki nga xam ne di Antoine frissi diom ak ki nga xam ne di général Moussa Fall que ni euh ñom euh, ñoy les véritables ñi nga xamni tam dañuy dal di commandé par rapport ak li nga xam ne moo di lenn si ay sarteem jëm diggante mom ak force de l'ordre alors tuddoon si aussi li nga xam ne moo di les forces de l'ordre mu daal jàpp ni ñoom da nga daal di sotti li nga xam ne moo di benn produit toxique bëggoon ko daal di faat exactement alors tentative d'assassinat bu Ousmane Sonko mu daal koy jéem li nga xam ne moo di les forces de l'ordre la monsieur gis gis exactement jëm si wàllu mel moom itam indi na ay explication que ni la nga ko sotti tox bi entre autres entre autres. man mbirum toxication man mënoo si wax dara. xam nga tam mënuma si wax dara. benn fekkeewu ma ko. ñaar xaw ma nan lañ koy defee. waaye li ma gis. man li ma gis. li nga gis li ma gis. te ñëpp gis ko mooy carrément ni am na luñ ko sotti wala def nañ ko dara moom moom si boppam moom sonk Ousmane sonk hmm. moom moo génn wax ni carrément lii lañ ma sotti waaye li ñu ma sotti nañ ma bëggoon faagaagal. Hmm. waaye ngir loolu mun a pour ma am si certitude foofu ma yóbbu ko pour gars yi mën ko xama analyser wala diagnostiquer mun a xam lan la ak lan la moom si boppam moo ñëwaat mu ne analyse yu mu defoon. jot nako waye ba tay man xamagu ma lan la. bëri explication nee mi confirmer tentative d'assassinat donc moom mi dem ba confirmer ni tentative d'assassinat la. Hmm. donc man damay daal di approuver mom lu wax parce que mom lañ ko def donc mom moko wax. mais contre expertise aussi yang ngi si xaar. ma ngi xaar contre expertise kay. parce que mom fu dem ah, mom fu dem. nek ay accusation yu euh, légère ci état bu Sénégal. accusation bu légère de limu wax ni du accusation bu légère de. Hmm. ndax mo tax du accusation bu légère. man sécurité bi. ñi nga xamante ñoo yor suñu kaaraange. Hmm. ñooñu kenn waru leen wax wax der bu ñaaw. ñu yor suñu sécurité ñun kenn kenn kenn waru leen teg loxo ndax ñoo ñuy protéger. Hmm. bu ñu nelawee. Hmm. ñoom ñoo tax. suñuy bien bu ñu nekkee dans des bonnes conditions ñoom ñoo tax. donc sécurité bi ñoom tey ngalawaay ñoo fi ne dëkk bi bu amul woon sécurité laa la wax. kenn du mën a dox say occupation te kenn du nekk ci jàmm. ok ok euh, laay am na solo bu baax bu baax bu baax donc on évolue euh, un peu wax exactement si.